Euh, Macky Sall day am am na possibilité am candi troisième candidature beneen atum moom mooy justice populaire peuple bu dal ci kaw. kaw yow moom vraiment ku war a yoon doo xaw ma chroniqueur nga xaw ma la. non ci may ma ma ñëw rek non ma ma ñëw rek yow sa xol ngay waxee waxee ak sa xel. te li ngay wax laloo ko ci loi laloo ko ci règlement quoi sincèrement. waxtaan ak yow lu métti la yow may ma ma ñëw rek non ma ma ñëw rek. non may ma ñëw rek xam nga dañu nekk ci kër boo xam ne dafa am ay loi nañu respecté loi yi bu jiital sa xol ak sa xalaat.

alors Ousmane Sonko ah, Barthélémy keneen a ci yem Khalifa ak ñeneen ñi yoon wax dañuy bokk di dañ bokk. d'accord ñi yoon ñi nga xam ne yoon moo ne du ñu bokk du ñu bokk. maintenant justice populaire nag ci yow laa ko dégg man yoon laa xam. monsieur le ministre loolu on l'a bien compris troisième candidature Macky Sall bu ci yoon àndee rek. di yoon àndee woon ci bu Ablaye Wade te kenn mënu ko fi bañ. monsieur le ministre ñu gagné ko ci ay urne. lu mu juróon fekkee nañ ko. waaw mais dañ ko gagné ci ay urne. waaw mais monsieur le ministre yéen Ousmane Sonko bi mu am sax est-ce que du yéen yéen ko ko parce que man dama jàpp ne yéen yéen dayo bi mu am tey yéen a ko fa yóbbu Ousmane Sonko tey bu nekkee waaw déglu ma la waa léegi dañuy waxtaan dañuy mhm. démocratie man wax waxu ngelaw laay bañ dama bëgg wax ñu lalu ci dara waa fa laa jëm si démocratie dama la ne mhm. baromètre bi ki dàqa jàng ci classe bu ñu demee ci examen lañ koy xam mais du ay may ma rek du may ma rek du waxu ngelaw mhm. du waxu kasaw kasaw ngeen baal ma euh, euh, Robert Sagna jaaj Fada bi ñuy tàmbale ñetti député la ñu tàmbale Djibo Ka bi muy tàmbale juróom-ñaari député su ma juumul ñi ma gën a xam histoire bi moom la tàmbale Idrissa Seck bi mu demee dafa am group presque parlementaire Moustapha Niass ñaata député la tàmbale Ousmane Sonko benn député la am te plus fort reste la amee la ko amee may ma ma ñëw rek may ma ma ñëw rek non may ma ma ñëw deuxièmement waxuma ne kii am na doole kii amul doole man ay fee laay wax mm. deuxièmement bi ñu demee élection Idrissa Seck moo ko raw ñun cinquante-huit lañ am bo doublé limu am ñetti yoon sax jegewu wul ñoo nga tudd ñep ay politiciens traditionnels may ma ma il a été quand même demi de dañ ko xam nga man bi ma njëkkee laaj bi ma njëkkee laaj ci Ousmane Sonko. mu ñëw minutes quand même maa ngi ñëw bi ma njëkkee bi ma njëkkee laaj ci Ousmane Sonko. mais mais dem na ba dama dem benn benn benn dama dem seeni naataango taskatu xabaar. Mm. man leen je le respecte pour deux choses au moins il est à l'Assemblée sur 43 ou 47 listes il a réussi son entrée à l'Assemblée même si c'est à travers le système du plus fort l'est et aussi deuxièmement, avec une le Deuxièmement, le travail du parrainage là, c'est un travail scientifique, technique et informatique. Dafa métti. boo paresseux wala amoo xam-xam peut-être doo def il a réussi au moins donc loolu il jéggi na ko mais bu ñuy wax ci ay faits laa la wax parce que mon débat est factuel Dans dem élection Pili Forest la doon député histoire li ma naa la fukki nit ñoo xam bi ñuy te mosuñ doon président noonu loolu la yàlla dogal ñett lañ amoon juróom-ñaar fukk baru raw ci ay député muy Diagne Fada muy Robert Sagna muy Idrissa Seck muy Moustapha Niass muy Djiboka ak ñeneen bu ñu demee élection présidentielle même condition yi lañ demee Sénégal kenn mënu fi sàcc élection kenn France sax dañuy contester élection ba tey États-Unis dañuy contester élection ay nit dee fa fii kenn mënu fi sàcc élection d'accord suñu mënoon sàcc élection député yi dinañ dinañ yem ne ay député ak opposition. mais est-ce que bu ngeen ko dàqutoon bu ngeen ko maa ngi ñëw maa ngi ñëw yaa ngi dégg donc li am solo mooy élection yi dem élection yi dem nii ils ont fait des ñëpp xam nañu ko bien que ñun ñoo gagné on a notre majorité parlementaire ñu ngi voté suñuy loi et règlement ñu assemblée mu ngi voté gis-gis parce que assemblée la fa ne du du majorité mécanique ku ñu fal da ngay soxla majorité à l'assemblée àddina noonu lay doxee loolu c'était débat ngeen baal ma de complexe loolu amul ku ñu fal ngeen jogante ñu fal la yow ne sa gis-gis lañ bëgg mais quand même mun sa gis-gis mais boo sañoon am assemblée bu ci ànd boo ko amul jarul ngay falu de instabilité lay andi andi ci réew donc tey as majorité lañ soxla woon am nañu ko suñu xalaat suñu gis-gis. mais uh-huh. mu ngi jàll suba ngoon guddi ak bëccëg ñoom li ñu bëggoon amul motion yi ñu voté jàllul donc ñoo leen ëpp doole. élection yi ba Sénégal ñun APR ñetti at la ñu def yàlla dogal ñu falu coalition Benno Bokk Yaakaar moo gën a yàgg histoire politique bu Sénégal 2009 mois la ñu def Moustapha Niass xaw ma PIT génn ñu def 11 mois beneen parti génn ñu def 5 ans LD génn suñu papa yoro de ñu génne leen ci gouvernement bi. d' accord monsieur le ministre. merci pour ce rappel. malheureusement il faut que ñu dem il faut que ñu dem. donc donc tey. nga daanelee foofu monsieur le ministre. donc tey li am solo mooy. ruñu ragaluñu kenn yàlla lañ gëm liggéey lañ gëm senegal yi lañ lañuy ñuy liggéeyal. d'accord. lu yoon dogal ci ñun nangu nañu lu yoon dogal ci keneen ku dul ñun nangu nañu mais du ñu nangu nag réew mi ñu dënk nit di fi àtt sa bopp nit di fi yàq alalu nit nit ne par A ou B lu la def da koy def loolu duñ ko nangu. d'accord te lépp ci dëgg nag lay lanu. merci monsieur le ministre alors peut-être en 30 secondes. monsieur le ministre loi lañ gëm ak règlement. monsieur le ministre démocratie lañ gëm état de droit lañu gëm gëmuñu leneen. merci monsieur ragaluñu kenn ragaluñu lenn. lii la mais dañu am mission aar Sénégal yi. monsieur mais di ñu déglu nag alors en 30 secondes s'il vous plaît ah. parce que lu toll nii euh, quand même euh, lii di gendarmerie ak police wala même ministre de l'intérieur ñu leen di porter plainte pour tentative d'assassinat j'aimerais juste en 30 secondes nga répondre ci loolu bon de toute façon loolu man dama yaakaar ne acte politique la ñuy posé rek coow lañu bëgg rek. mais loolu acte politique ministre de l'intérieur kay dafa am mission bu ko dénk. Mhm. président délégué ko ay pouvoir askan bi fal ko liggéeyam lay def bu fekkee ne dañu taal ay bagage su jàmbur yaa ngi dégg. ñu ay nit bu ñuy waaja a taal doo leen téye da ngay baar bañ taal nga doog leen téye kon ana njariñu état. très bien état dafa war a protéger les les les personnes et les biens. loolu mooy mission état état du xaar ba yàq ba pare bu doog a intervenir état day prévoir état day anticiper état day planifier ay actam au-delà du ministre de l'intérieur ñooñu ay homme de tenue lañ faruñu ak ñun état rek moo leen fi teg fayuñu seen jàng fayuñu seen concours. dañu jàng def ay concours di def seen liggéey. fii lañ leen fekk te bu soobee yàlla fii lañ leen fi bàyyi. te ñu leen di ŋàññi ni bu ñëwee aussi dañ liggéey ak ñoom. très bien dañuy donc nañu bàyyi di ŋàññi nit ñi di saaga nit ñi. ngir seen i intérêt crypto personnel programme puusal ma toog loolu moo dul yoon boo buggee jiite réew mi wala nga bugg jiite ak gox wala nga bugg a dem assemblée loi ak règlement yi dañ ko régler ba pare. très bien remplir conditions yi soo demee bu loolee may nga jël. très nga am vision. alors Momo dinañ ñëw ak yow tout à l'heure